xañ na du waxi mitin waaye Moustapha maa ngi lay wax ne gis nga nite lu ko nit di jëndee jar na mbir mii nite da cee baax waaye yaa moom dëkk bi rek nga tekki fas wi danga nga bëgg foo ko yeddal mu tëral ngeen nit ñi kenn moomu leen ku bëgg a jëflante ak ñoom da ngay aw ci aw yoon maa ngi lay dalal jàmm di la wax ne engagement bii nga jël fii tey ne da nga liggéey bu président Macky Sall jàll dès le premier tour ci 2019 ak ci façon bi nga ko defee bi nga ko waxee ñun loolu la ñu soxla ñun soxla wuñ fii ci Kaolack ay démonstration ay mots ay slogan ñun soxla wuñ loolu ñun ay actes yu ñu posé la ñu soxla li nga nekk fas yéene ko def ak ñun fii ci biir Kaolack pour dimbale président Macky Sall ñu ngi lay dalal jàmm ci biir Kaolack ñu gi lay dalal jàmm ci biir population Kaolack ndax ñun kat ku ñëw fas yéene ànd ak ñun pour liggéeyal Macky Sall dimbale population bi ak koo mën a doon daañu ànd ak yow dimbalante ak yow donc maa ngi lay wax ne la à partir d'aujourd'hui na nga xam ne loo nekk ñu nga ca loo dugg dinañ ci ànd ak yow lépp loo yëkkati dinañ ko yëkkati noo ak yow pour mu ci jàmm wàccaat ci jàmm li ci kanam rawuti bët dama waxoon barki démb ci daaru raxmati na amuñ problème ak person képp koo xam ne daal da ngay liggéeyal Macky Sall ca bu dëgg daañu ànd dax ak yow président Macky Sall déglu ma sànni ko benn xeer ma ne mi ngi jàppale gars yi li man gars yi mi sax ñi ngi jàppale gars yi luñ man waaye nañ leen wax nañu ñëw ci terrain bi bëree ca bàyyi làqatu bi nañ bàyyi làqatu bi mbir mi mbir mi président mi ngi leen mi ngi ëmb lim man waaye nañ ñëw ci terrain bi rek bu ñëwee ci terrain bi daal liñ samp bu gënee dëgër liñ samp rek jarul intervention jarul intervention bu gënee dëgër rek ñu rangé kon nag loolu maa ngi wax président ne ko damay ragal loxoom bi toqi ndax tee na ba sonn ca gaa yi dimbale ko pour mu taxaw alors ma wax ne ñii ñu ànd ak ci biir Rahma di liggéey di def di dox di dindi ànd di liggéey ci biir Rahma ak ci biir APR dama ne gàcce ngalaama ku xool fi ñu déparé woon ak fi ñu liggéey ba fi ñu yegg fii tey nga xam ne du ay cuune du ay ragal du ay bokkat ñoo ko porté combat bi ba ñëw fii tey ma wax ne li daje fii tey ci bëccëg li daje fii Kaolack tey ci bëccëg ci ay jeunes loolu cuune wala ku ragal mënu ko leen rek laa leen bàyyi ko xel ñu demati élection ñu naan ay vingt cinq mille ak trente mille ak trente cinq mille ñoo woote ci biir Kaolack ma balee nag Kaolack ma leen ma ne yéen jeunesse bi li bindu xam ngeen ko ñun xam nañ ko wax nañ ci waxati yéen ñi nga xam ne yéen a defal fichier boobu nga xam ne cinq mille personnes la ngeen réunir leen tey dama ne cinq mille personnes ci raxma ci jeune jaadu damaa bëgg ñu ngi dem koor ñu di jëm ci stade bii xam naa ne xañuñu fa waaye terrain bi dëggee fii ba keroog mu yegg fële bëgg naa buñ oree ku ne Rahma jàmm la rek ñu samp ko fii ci naa leen du ngeen dem assemblée générale ca defu balaa booba dama bi ci dëkk bi bala ma ko fàtte maa ngi nuyu jeunesse su Kaolack bi nekk ci université yi ca def ay délégation ñëw fii tey jël ay engagement ne dañuy liggéey ànd ak Rahma pour jàppale président Macky Sall Thiès cinq cent et quelques étudiants ñoo fa nekk wax nañoo ñoom bañ d'accord pour ànd ak ñu liggéey président Macky wax naa leneen ne leen yëmu yëmu du ñëm foofu dama bëgg ngeen ñëw cinq cent jeunes ci ay quartiers yu fasantikoo la dëkk na ngeen jël ay fiches ku ci nekk la nga liggéey ci sa gox yenn jeunes yooyu étudiants yooyu ngeen présenté ko waaye loolu yëpp nag condition bi condition bu kenn jàpp na nag dama leen di jopp noo waaye ñoom ñoo jël engagement ne lépp loo nekk ña nga ca man li ma nekk mooy Macky Sall li ma nekk mooy Macky Sall jàll premier tour li ma nekk mooy région de Kaolack waxoon naa ne li fi bindu yëpp bu dee téeméer la juróom-ñeenti fukki moom bu ñu watewul mooy gañewuñu élection yi loolu mooy dëgg li fi nekk tey ci ay borom mi ay borom mi nombre tànk li fi nekk tey di liggéey ci turu parti bi di turu président Macky Sall mu jox leen ko su fekkee mënuñoo fexe dox ci nit ñi wax ci nit ñi ba ñooñu génn waaye nañ leen démissionné tekki suñu nombre tànk yi nañ leen démissionné su boobaa tekki suñu nombre tànk yi delloo ko ko na seetal ñeneen parce que li ma gëm li ma gëm incha allah incha allah buñ doxee buñ doxul président dina jàll premier tour allah. bu ñu jàllee ba pare bu fekkee ne ñoom loolu amuñu ko ñun waa Kaolack nañu démissionné ne ko seetal yeneen mbër nga samp leen ndax ñun tële nañu ca bàyyi wax ji wax ju du rek la problème bi slogan yi du rek la problème bi jëfa koy rek wàcc terrain bi